محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الله تعالى خلقنا ليأمرنا بالطاعة وهو رب المعبود علم بعلمه الأزلية أن من العباد من سيكون طائعا وأن من العباد من سيكون مكذبا معاندا أعد الجنة لعباده المؤمنين وأعد النار وما فيها من عذاب عليم للذين كذبوا الله وأنبيائه فنحن لسنا كالبهائم نأكل ونشرب ونشره ونمره كالأنعام نحن لسنا كالبهائم للأكل والشرب والنوم بل الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته وينهانا عن معصيته فإن من لم يعرف هذا لم يعرف لما خلق أليس الله تعالى يقول في القرآن أيحسب الإنسان أن يترك السدى mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala gannaaw ba nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi sunu xutba tey mooy benn aaya ci alquranul karim ci saar bu tudd suratul qiyaama aaya 36 fanweer ak juróom benn sunu boroom subhaanahu wa taala mu ngi fay laaj mbindeef bii di doomu aadama kii di nit yàlla di ko wax ne ayaxsabul insaan an yutraka suda ndax yow doomu aadama ndax yow nit da nga foog wala nga yaakaar wala nga jàpp ne man sa borom jalla jalaaluhu dama laa bind pour fo ndax yow doomu aadama da nga foog ne kenn bindu la ndax dara sunu borom def nu bind sàkk nu wàcce ñu ci kaw suuf def ñu xeet def ñu mbindeef yi mu tànn def leen gën gi mbindeef waaye mu sant leen moom borom bi jalla wa- jalaaluhu ne dama sàkku ci yéen mbindeef yooyu ñuy woowee nit ngeen jaamu ma waaye moom yàlla mbokk yi ba muy bind xeet woowu di nit moom yàlla ca xam-xamam ba ca azal xam na am na ci doomu aadama yoo xam ne danañ ko topp laajul sax mu yónni ci ñoom ab yonent waaye am na ci ñoo xam ne danañ ko topp waaye il faut ay yonentu ñëw fàttali leen am na ñoo xam ne danañ ko topp parce que moo leen bind am na ñoo xam ne ay yonent danañ leen fàttali am na ñoo xam ne nag yonent yi sax danañ ñëw ñu fétteerlu lànk ne nun topp nu yàlla moo tax moom yàlla ba mu xamee loolu mu xam ne ñi mu bind di mbindeefam yii di doomu aadama yii am na ci ñu koy topp am na ci ñu nar a lànk moom yàlla mu defar ñaari kër mu ne yéen ñi ma nar a topp kër gi laa leen dencal yéen ñi nar a lànk kër gi laa leen xarol mbokk yi kon nanu xam ne li tax nu wàcce ñu mooy topp yàlla moom yàlla tabaraka wa taala mu ngi nuy xaar ci loolu moo tax mu ne nu nekku leen comme ay bàyyi ma bàyyi ma rek moom la yàlla sàkk yàlla sàkkewu ko dara lu dul lekk naan cëppi-cëppi sëy kenn du ko topp dara yowmal qiyaamati ñun nag nuroowuñu ak bàyyi ma yi nu roowul ak bàyyi may ndax bàyyi may duñ leen laaj ëllëg ñun dañ nuy laaj nu roowul ak bàyyi may ndax bàyyi may sant ñu leen jaamu jaamu nun lan ko sant lasna kal an'am kal bahaim lil akli wa shurbi wa nawm nekkunu comme bàyyi may rek war a lekk naan nelaw waaye yàlla daf ñu sàkk pour ñu topp ko mu tere ñu ñu moy ko su fekkee ne yow mii loolu leerul sa bopp loolu xamoo ko da nga bokk ci ñooñu yàlla di laaj question bi naan leen ayaxsabu l insaan an yutraka suda ndax doomu aadama dafa foog ne danañ ko bàyyi nii rek ci neen dund ci kaw suuf nekk ci li la neex def li la neex dugg fu la neex wax lu la neex ba nga dee rek ñu daat lay suuli dara du xew nga dekki rek daan ne dagaj biir aljanna loolu yomb na trop bal na la leer ne yàlla la sàkk ndax mbir moom moomu yone yàlla sàkk sàkk tax sàkk la yàlla moom moo yónni ci ay yonent yonent yooyu fàttali li looy ut si kaw suuf kon war nga taxaw góor góorlu ci loolu ba ëllëg bu la yàlla taxawalee ci kanamam nga bokk ci jaamam yooyu nga xam ne xamoon nañ li tax yàlla bind leen kasiruna ulaika alladina ma arafu lima xuliqu bëri na tey bu ñuy xool dëkk bi xool mag ñeeg ndaw ñi xool góor ñeeg jigéen ñi di nga mën a gis ay nit ñoo xam ne ñii li tax yàlla sàkk leen xamuñ ci dara ñii li tax yàlla sàkk leen defuñ ci dara ñii li tax yàlla indi leen ci kaw suuf fàtte nañ ko bu yàgg te ndeysaan doomu aadama war nay bàyyi xel boppam bu baax a baax a baax maak sama mbokk mi dañu ànd dimanche passé benn kër bu ñu bëgg a def internat alquran ñu ànd di seeti borom kër gi dimanche ñu ñëw mu recevoir ñu wax ak ñun ne dama xaw a souffrir un peu dama xaw a feebar may leen ma lundi ma ñëw ñu visiter kër gi ma jox leen ko lundi boobu ñu ne ñu dafa feebar yóbbu nañ ko principal mardi ñu woo ñu ne ni dee na benn yoon laa ko mos a gis ci sama dund benn yoon ndeysaan ma ñëw ci dëj bi ma ànd ak mbokk bi ñu dem di jaale ji dañoo fekk ñu teg baraade yi di ataaya ma sol samay dàll ñibbi mooy nit ñi xamuñu lan moo tax yàlla bind leen nit ñi dañuy fàtte fàtte lu yàlla nekk ci lu leen neex fekk yàlla moom programme na ba pare loo nekk di cëppi cëppi loo nekk di tëb bu la yàlla soxlaa di nga fa bàyyi loolu ñëw waaw dañuy fàtte fàtte lu yàlla nekk ci suñuy programme fekk xamuñu ne ñun suñu dund bi dund doomu aadama mi ngi mel ne rek benn buum bu ñu laxas ci biir bërigo ñu bënn bërigo bi ci digg bi ne la xëccal buum bi yaa ngi xëcc xamoo bërigo bi kañ lay buum bi kañ lay jeex ci biir bërigo bi yaa ngi xëcc di dem rek loolu mooy sa dund da ngay jékki-jékki rek nga xëcc rek buum bi ne pëttax ci biir bërigo bi mooy sa dee jot na nga dee xamoo buum gu gàtt la xamoo buum gu yem la xamoo buum gu ndaw la xamoo fu mu yem dañ ko laxas ci biir ub ko kastere ko ci yëpp ñu la xëccal buum gi mu dem acca demal ngay xëcc rek di dem affaire bi gudd rek nga kontaan fekk xam nga ne li ngay xëcc mu ngi dem waaye fii mi ngi jeex loolu moo nekk sunu dund mais xamuñu ko jàpp ne war na nekk ci àddina bi tey koo fi ne da nga dee mu ne non man deewaguma léegi foo des na dese naa ay at fekk waa jooju ndeysaan xamul ne ay seconde moo ko dese ci kaw suuf juru tabaski wax naa leen ne am na koo xam ne daa julleeg imaam ba pare bañ ne imaam rendi na mu dugg biir néegam dem ñibi dugg biir néegam di simi grand mbubbam pour rey xar bi daal di daan ci kawlal bi dee ñëwoo imaam imaam ne léegi léegi ñoo taxalikoo léegi la ma doon ndokkeel yàlla faalewul loolu yàlla xamul loolu mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna allaha yubgidu kullu jazorin jawaaz saxaab bil aswaaq jiifatun billeyl ximaarun binnahaar aarifun bi amri dunya jaahilun bi amri l axira yonent bi neen am na ci mbindeef yi ñoo xam ne dañuy nganda ngandalu di yëkkati dënn di yëkkati ay mbagg di jaay nit ñi ne ñoom ñooy borom kàttan yi ñoom nangam nangam ñooñu yàlla sit na leen am na ci ñoo xam ne dajale alal ak wax ju bari nekk ci marché yi coow waat dafa ne kenn mënulu leen dara ñooñu jiifatun bi leyli yàlla nee na ay médd lañ guddi ximaarun bi naxaar ay mbaam lañ bëccëg loolu lu muy tekki jiifatun bi leyl ay ay néew lañu guddi mooy dañuy nelaw rek amuñu mukk fu ñuy yeewoo ci guddi gi jàpp jullil yàlla ñaari ràkka non jamais yàlla mun leen yeel mun leen tax ñu jóg moo tax léeg-léeg pour ñu contrôler sunu ngëm sunu digganteeg sunu borom fajar yi ku seetlu yépp bi ñuy nodd asalaatu xayru minan nawmi day taw ñetti fan yi ñu tegaloo wala ñeenti fan bu ñuy nodd asalaatu fajar day fekk mu ngi taw waa ji dina laye day taw moo tax mënumaa dem jàkk bu koy limaan xëyee ne ko tey tey gisuma la mu ne ko da doon taw te kenn ci ñun tey bu amoon rendez-vous foofu ak benn milliardaire bu ñëw di la financer sa projet ci taw boobu di nga dem soo fa amoon benn xale bu jigéen boo nobanteel ne la woo la ne la maa ngi fii ci taw bi di nga xuus taw bi ñëw soo amoon benn directeur société bu la ne na nga ñëw dama lay jël nga liggéey di nga xuus taw bi dem lu tax yàlla convoqué la que la heure boobu ci heure taw bi demoo après boo yeewoo julli ñaar raak génn ci biti di wane ne man damaa gëm yàlla du dëgg moo tax mu ne jiifatun bi leyli ñii ñooñu ay néew lañu guddi waaye ximaarun bi naxaar ay mbaam lañu bëccëg xoolal nit kuy dund nekk mbaam parce que xamoo yàlla parce que sa programme bëccëg bi yëpp yàlla bokk ci moo tax yonent bi ne ñi ay mbaam lañu bëccëg yonent bi nee na aarifun bi amri dunia gis nga ji mbirum àdduna rek lañ xam jaahilun bi amri alaaxira mbirum alaaxira ëllëg lay xew xamuñ ci dara soo leen doon laaj ëllëg alaaxira xamuñ ci dara waaye mbirum àdduna soo waxee football bi ñu gën la koo xam soo waxee làmb ji ñu gën la koo xam soo waxee mbirum alalu àdduna ñu gën la koo xam soo waxee mbirum bànneex ñu gën la koo xam loo wax ci àdduna dinañ la tagal lépp ne la mu ngi nii waaye boo ne alaaxira ñu ne la non je ne sais pas fort en matière de religion quoi man mbirum diine xaw ma ci dara te mbirum àdduna lépp leer na ci ñoom yeneen bi nee na ñii ay mbaam la ñu bëccëg waaye ay néew la ñu guddi parce que xamuñu seen borom mu ne haazan sinfu min annaas haaza sinfu min annaas kasirun ñu bari ci doomu aadama yi ci xaaj bi nii la ñu mel yàlla sax subhanahu wa taala daf leen di wax joxoñ ci quran ne leen wa qalilum min ibadiya shakur néew na ci sama jaam yi ñu may sant néew na ci doomu aadama yi kuy sant yàlla kenn ci ñun du toog xool boppam li ko yàlla may ci wér ci cëram yéeg yaramam bi xool njabootam xool këram nekk ci jàmm ba sant yàlla abadan saa yoo gisee ab sénégalais bu sant yàlla rek poos bi daa dafa lekk ba suur dafa lekk ba suur mu doog a wax alhamdulillah dafa ne ne lekk ne alhamdulillah dong moom mooy sant yàlla fekk boroom xam-xam yi nee nañ as sukru tarkul maasi sant yàlla mooy nga bàyyi mooy yàlla feek bàyyi woo mooy yàlla santagoo yàlla tabaraka wa taala feek bàyyi woo mooy yàlla feek yaa ngi koy tooñ moom sunu boroom santagoo ko soo ko buggee sant bàyyi koo tooñ mbokk yi ñu bari ci doomu aadama yooyu ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne ay mbaam lañu bëccëg ay medd lañu guddi mu ne am na ci ñoo xam ne wallahu taala alima anna min ibadihi almuslimin man sayakunu waliyan taqiyan salihan wa anna min ibadihi almuslimin man sayakunu fasiqan aasiyan muzniban Allah xam ne ñaari mbooloo yooyu yëpp yàlla am na ñoo xam ne xam na leen bu guddi gi xaajee danañ yeew bu lëndëmee danañ jóg bu xiinee danañ jóg buy ngelaw danañ jóg buy taw ay doj danañ jóg wuy ji yàlla tabaraka wa taala waaye yàlla am na xam na ci ñoo xam ne buñ leen yeewee duñ jóg buñ leen yeenoo duñu jóg buñ leen yëkkatee duñ jóg suñ leen yóbbu woon ba biir jàkka ja sax suñuy julli day fekk ñu ngi gëmmintu bu ñuy julli ci biir jàkka ji sax day fekk ñu ngi gëmmintu yàlla xam ne ñaari mbooloo yooyu yëpp moo tax sunu yonente alayhi salaatu wasalaam di ñu soññ pour ñu bokk ci catégorie gu njëkk gi ñooñu nga xam ne xam nañ seen boroom xam nañ li tax yàlla bind leen xam nañu li tax bu nu déggee wootukati yàlla bi di woote ñu daal di dem wuyu ji yàlla xam ne am na ñoo xam ne faasiq ay kàccoor lañ aasiyan ay moykat lañ musniban ay defkatu bàkkaar lañ wala yàlla mu ne ñooñu ëllëg kenn mun ta fexe ma jëflante gaa yu mel noonu mbokk yi yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله اما المسلم الكامل التقي الصالح والذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi mbokk yi bu fekkee jullit bu mat sëkk pour ñu xam melokaanam day ragal yàlla day nekk ku baax mooy kooku yonent daa di joxoñ baaraam bëgg nu xàmme ko mu ne jullit dëgg-dëgg mooy ku may jàmm jullit yi ci sa loxo ak ci sa làmmiñ mu ne kooku mooy al muslimul kaamil julit bu mat bu wér huwa alladi kaffa azaahu an almuslimina wa gayri almuslimin mooy ku fekk ay loram fegal ko boppam fegal ko jullit yi fegal ko ñeneen ñu dul ay jullit falam yuzihim bi xaqi laa bi lisaanihi wala bi yadihi wala bi gayri zalik mu ne mooy jullit mooy ki nga xam ne say lor fegal nga ko say mbokk jullit waaye fegal ko ñeneen ñu dul jullit ñi ci sa làmmiñ ci sa loxo ak leneen lu dul loolu fa man asa allaha taala min almuslimin bi haysu lam yus lam yasil ila martabati alkufri kaman taraka alsalaa mutakaasilan aw aftara fi ramadan wa jahara bi zalik aw kaana aaqan li ummi aw abi aw kaana aakila maal alyatim zulman aw kaana maal alriba aw saaribu alxamr aw zaniyan wantahara bi an qatala nafsahu bilhadid aw tahassa mbokk yi mu ne bépp doomu aadama boo xam ne nag danga mooy yàlla moo xam mooy gi ci ñàkk julli la moo xam danga bàyyi benn bis boo dog ci weeru koor wala danga feeñal ak mooy yàlla goo xam ne yaa ko tey wala danga mooy sa ñaari way jur ndey la wala baay wala danga lekk alalu jirim ci tooñ ko wala danga lekk riba mbaa nga naan sàngara wala danga njaaloo wala danga xaru wala danga rey nit wala da ngaa ngand ngandalu ci kanamu yàlla tabaraka wa taala wootewu bir rububiya awil uluhiya ne yaay yàlla wala yow da ngaa jël daraja ci li yàlla moom jalla jalaaluhu képp ku ci def yii nee na li muy ngand ngand ngand ngand bàkkaar yi yépp xoolal sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ngi lay tàllal ay loxo di la wax yow sama jaam boobu dëppal tuubal soo dëppee soo tuubee ma jéggal la ak bàkkaar yi li muy doy waar te terewul doomu aadama yooyu def li ñoo ngi féeteerlu di gën a dëgër bopp di gën a yëkkati seeni mbagg ci kanamu borom bi tabaraka wa taala moo tax yàlla ne leen bu leen yaakaar ne dama leen a bind nii rek ci neen a yaxsabul insaanu an yutraka suda yow doomu aadama da ngaa yaakaar ne dama laa bind nii rek ci neen déedéet alam yaku nutfatan min maniyin yumna xanaa xalaatoo fi nga bàyyeeku yaa ngi bàyyeekoo ci ndox ndox moo xam ne feesul xottu gerte ndox moo xam ne doya dina min ma in mahin ci beneen aaya doya dina ba ku mu taq sa yére boo xëyee suba fóot ko doo génn ak yére bi ku mu taq sa yaram di nga sang boo xëyee yàlla nee na ci ndox moomu laa la bind alam yaku nutfatan min maniyin yumna summa kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwa yàlla nee na après ma def la nga nekk lumbu deret ma lay changé étape par étape man yàlla ma bind la ma tollale bind gi fa xalaqa fa sawwa maa ko tollale fa jaala minhu zawjayni zakara wal unsa ma def ko muy peer góor wala jigéen waaye yàlla nee na man mi def loolu soo yaakaaree ne ëllëg doo taxawaat ci sama kanam boo yaakaaree ne buñ la suulee ci suuf suuf bu la lekkee jeex na boo yaakaaree ne doo dekkiwaat alaysa zalika bi qadirin ala an yuhiya al mawta moo tax borom xam-xam yi nee nañ aaya bi bu yemee foofu waxal bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin waxal ne dëgg la te man kenn laa ci ñi nga xam ne seede naa ne loolu ëllëg yàlla dina ko def yàlla dina dekkil jaam ñi benn waay mooy na yàlla bu ngeen demee ci muslim di ngeen fa fekk borom alal ju doon mooy yàlla guddeeg bëccëg guddi ak bëccëg musul xam yàlla réere yàlla ba dee dikkal ko mu xam ne day dee mu ragal mu tiit ne man kat su ma dajeeg yàlla du baax mu woo doom yi ne leen ban baay laa ci yéen ñu ne ko baay ju baax baay boo xam ne xam na njabootam baay bu musul tan xam lu ay njabootam mu ne lu ngeen mës a bëgg def naa ko ñu ne waaw lu ngeen ma sa joxoñ dagg naa ko ñu ne waaw lu ngeen ma mës a won defal naa leen ko ñu ne waaw mu ne benn mbir rek lay sàkku ci yéen damay dee ñu ne waaw mu ne bu ma deewee na ngeen dajale ay matt ngeen lakk ma ba ma nekk doomu taal bu ma nekkee doomu taal na ngeen ko def doom bi na ngeen ko def ñaari paan benn paan bi ngeen dem ba biir géej sotti ko ci ngeen yëngal ko mu seey beneen paan bi ngeen yëg ci montagne yi xëpp ko ngelaw lu yóbbu ko doom yi ne ko waa papa lu tax lii lépp bàyyi lu tax mu ne bëggumaa dajeek yàlla bu ngeen defee lii nag dootuma dajeek moom ñu ne ko kon dinañ ko def mu dee doom yi dajale ay matt teg ko ci taal ko ba mu nekk doom ñu ut ay paan def ko ci ñu seddali ku dë ñii jëm géej ñii jëm montagne ba ñi yëg géej sotti yëngal ko mu seey dem ña dem ci montagne ba xëpp ko mu naaw yàlla ne waa ji kun fa yakun mu taxaw ci kanamam yàlla ne waa ji waaw yow lii nga doon def lu tax nga def ko mu ne yàlla dama laa ragal rek ndax ba nga ma bindee li nga ma santoon yëpp defuma ci dara ma ra- ma ragal bisub tey bii laa doon daw ma bañ a taxaw ci sa kanam xam naa ne du baax ndax yàlla man ñemewuma la yàlla mu ne ko demal baal naa la demal dugg aljanna demal nga dugg aljanna te kooku bu ñu demee ci kitaabu tawxid ci téere tawxid yi dañuy fekk borom xam-xam yi wax li mu def ku ko def safara nga jëm ndax dafa weddi ne yàlla mënu ko dekkilaat ndax dafa weddi ne yàlla am na ndax dafa weddi ne yàlla borom kattan la te tarawul yàlla jéggal na ko dugal ko aljanna kon nan leen dëpp nan leen delluwaat ci suñu boroom nan leen tuub bu nu yaakaar ne Sénégal ay nit ñoo koy defar wala ay président Sénégal jaamu yàlla rek moo koy defar suñu jaamulee yàlla day métti rek waaye du mus a baax président bu dem rek bu ñu yaakaaree ne keneen kuy ñëw aljana la ñuy yóbbu du baax parce que yonent bi nee na kayfa ma takunu yu walla aleykum nu ngeen mel rek yàlla indi leen buur bu mel noonu nu ngeen mel rek yàlla indi leen buur bu mel noonu yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصحداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله
الله أكبر